non entrain bi moo gën a yàgg ngeen def benn film ñu naan ngeen dem si entrain bi ngeen def ñaari film Allez-y, allez-y. Allez-y, avancez. Merci. Avancez, avancez. Look at him.

may leen ko mu jàll may leen ko mu jàll may leen ko mu jàll may leen ko mu jàll may leen ko may leen ko mu jàll may leen ko may leen ko Khadija doucement may leen ko wallaay may leen ko waxul xasaara na ñëpp def nii ñu màggal Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah yott yàlla Muhammad wa huwa akmal wara xalxan waxul xasaara yott yàlla Muhammad wal mislu xatil yura wal yura fi siyami محمودنا فرحتنا والجنوب في اليمين محمد رسول الله إلى مكان القدس أبو جبير waaw merci. ah macha allah. di wax nag. di doon fekk tey. Tidiane Kandou awa baax na jërëjëf jàmm ñu ngi lay jox sa wàccuwaay Ismaïla kii ci doom yu baax la bokk kii Baba Thiam Diouf ci kon yu baax ñi ci doom yu baax la bokk dama ko fekk maa ko wane Espagne ak ak ak soxna bu baax ci téléphone rek la ñu ànd mu yónnee ma état moom jox ko Fatim Seye jërëjëf mu jox ko sëñ bi mu wér. Adama Samaam nee ñu sant yàlla kële yor toogal nee bu sañoon fii nee ko li nga xam ne ñoo fi teew ah nee na magal bi nga xam ne bu fi nekkoon. ne ceeb bi ne ko koy nee ñu bëggoon nag ku fi nekk ku fi nekk baat bi am na de mu jóge ci Ismaïla Lo dama ne bi am na waaye lii mu wax moo solo foof nee na fu waay toog nee na nga def Fatiha teg ci ñetti Ixlaas ak benn salaatul Fatiha def nee na yéen a ko coon balaa ko fekk nee na ku ko fekk ko fekk moo tax ne ko dafa teewu bisimilah rahmaan rahim ñett la wax ak ak benn salaatu ala nabi lu yéen a ko coon fekk bisimilah bis. amiin allahumma amiin. lan la ko yàlla defalee ñaan bi. mu fa fekk ak ko fa fekk. nee na mu ngi nuyu mbooloo bi yëpp. nee na di sant yàlla. nee na di nuyu xel bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na dama ñëwee di waxtaan si. nee na fekk saa ñu ne ak papa sàmm. nee na jàppal ko dàq. nee na jàpp bés bii nee ko nangu ci sant yàlla. nee yàlla mën na la may nga dëgmal. nee yàlla mën na la may nga dëgmal. nee te doo àggal. nee na may noonu la mu àggal. nee mi ngi gërëm nag Alioune Tall. nee di gërëm yaayu Khadija bii. nee ñaari cër la ci toog. nee kër coon. nee bi mu dëndoo daal la jëkkër bi gën a dëgër. nee ci xale yi. ak frère yu baax yi ak borom yu baax yi nee macha allah nee nañ ci sant yàlla nee Guinée nee jàllkaay jigéen bu baax la nee Guinée rek moo ko ñor nee diggante ak coon nag ñëpp xam nañ ko moo tax yaram day daw loolu ñu yor jël jox ko nee frère yu baax yi bokkal ndey ak bàyyi. nee moog yéen yéen a bokk ndey ak baay uh, nee Assane Assane ak Ousmane ak Lamine Naar nee lim na ñëpp nee ñu bàyyi ko ak loolu nee bu ñu leen neexoon ñu ne lii du xew nee ñoom ñëpp daal nee ñu gërëm na doomu baay ak uh, Mouhamed nee ñoom ñëpp teraanga rek lañ dëkkee nee ki dox na ba jël ko tey nee muy sëy bii. beneen sëñ yàlla ko yàlla ko ci sëñ ne yàlla dàqal leen seytaane yàlla yokk seen boole seen lépp nee ñu dund ba am ci 15 tonton nee ñëpp am ci Assane am ci Mor Dior am ci Ousmane am ca nee yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def nee mënu ko tëdd nee fa ma xam jot tëdd seet na koy nee di gërëm na kuréel gu baax kii mu àndal. maam Thierno Mbaye bu baax mi ngi doon baax di toog ak Samba Lo ak lu Ndoye Thierno Ba ne bu Limaamu Mbay am di Diallo mooy Baye côté Ndeye tam mooy mooy mooy Baye mën na ñaan mën na may mais yàlla yàlla yombal na ko comme yàlla def naa ba li xew ni mu xew di nga sant yàlla alhamdulilah ne léegi nag mbooloo mi Alioune Tall sama géej gii ma yëkkati mu bay tari doom yi maa leen tudd amul baykat jabar yi maa leen ñaan amul baykat waaye dama amoon nag nijaay bu baax ci Abdou Aziz Sall kenn du moom wala ba nekkoon ci président Abdou Diouf boo ko gisee ci moom na ko fekk ci soo ko fekkee ci biiram ci bunt bi la lay xaar élégance bi manqué ci réew nga ne comme comme wutu kilifa fekk ci bureau bi mu toog c'est pas bon ci wutu bi lay xool ñu ko tànn la dox bi gunge la ba ci seet mu la nga toog sa xel daal kooku nag c'est socialiste waaw. so loolu la loolu yàlla dogal amul béykat bi damaa jàng formation bi ak dund kulbali mu toog ci mu toog ci mu toog ci crédit bi ni ma fekkee amul béykat bi moo tax élégance am na yu bëri wéer kii jël kaddu nag mooy Alioune Tall ginnaaw bu bàyyee ba toogee ñee di bàcc wala Alioune yow bàcc ba mu xaaree ma dikk. bàcc nag dafa ne garmi daf ma yóbbante ci yow yaay wax sax bàcc sama doom bi loolu la ñu si jàng. en kay. yow yow sax mu dégg la. lii mooy mooy indi moo moo kii ngeen tawi ko defoo. daal di titre leen saf. waxuma dara. tey bés bi naka nga ko yëgee nga may ñu ko ko dundee daal ko sant. ni ñu ko dundee eh, nan nan la ñu fi ñëw dundee. jee na kay mbégteeg bànneex la. léegi koy ñaanal tey loo conseil nga koy jox tey. conseil. ah d'accord. gannaaw leen nuyoo yéen. yéen day wàlloon nag ñu leen di nuyu ñuy ay julit mu am droit nag euh, tànn xool bëgg am yëg-yëg ñi may am droit tànn xool am yëg-yëg waaw parce que gannaaw nit la ñuy maye te te nitay ñaan daal ci mbég rek dafa leen ñaanal nag sëy bu barkeel sëñ barkeel lool bu am njaboot bu barkeel ak gudd fan ak wér mucc ak muccule seytaane bañ cee dugg ci ak bañ cee dugg gàllankoor nattu yu yooyu bañ cee ci jàmm ñoom te te sëy sëy waaw alors ñu gis ko tamit nga gis euh, kii di suñu papa Ismaël Lo mu ñëw teew si bés bi mu mel ni papa Thione bu ko bàyyi. Ah, loolu c'est normal grand Ismaël ak ak papa Thione wala boog papa Ismaël Lo papa dañ di ay frère loolu c'est normal Izo dafi ñëw kon euh, taxawal Thione mais aussi taxaw en tant que baay ah, man la baay la Ismaël Lo Youssou Ndour Baba Maal on ay baay la waaw. Ah. ñu gis tamit euh, complicité bi nga xam ne nii même fekkee Sénégal yi des fois ay rumeur daw maanaam si biir Faramareen mais tey gis nañ ñëpp. Eh, eh, yow yaa fi eh, euh, Assane fi. ban complicité ak benn ay waay rumeur. lii mën amul ak lan. waaw dama gis ni que complicité bi ngeen maanaam am si tey ñu gis. Euh, tey famille Seck yëpp ñëw nañ Assane Ndiaye Ousmane waaw mais de waaw mais dañoo war a ñëw ah même bu fi Thione Seck doon dund sax ñun dañoo war a ñëw xam nga nag bu fi Thione Seck ay bàyyi lañ ko. di dëgg kon faa ñu ñëw ak lan. conseil temps yi conseil yi ngay def tournée yi. ka ngeen bàyyi ma yegg si ci nit boo tontoo pay rek boo tontoo pay rek Kéema moo yëngal gëstu lu nga yëngal balaa nga yëngal si biir nga yëngal. bon a yëngal yëngal ma dara. ah waaw ma. waaw. ah ñu ngi jéem de ñoo ngi jéem ñoo ngi jéem donc buur bi yàlla moo fi ne et que lii mooy suñu def ay jéego ci li ñu mën di ko euh, yàlla bu baax. sante ko suñu suñu wayjur sante ko suñu sëriñ yu